bismillahi rahmani rahim sadaqallahu al-azim balaxa rasuluhu al-mustafa al-karim al-alama qala rabbuna wa mushahidin allahumma arhamna bil qur'an al-karim wanfa'na bil ayati wa zikri al-hakim waj'alhu lana hujjatan yawma al-din allahumma anfa'na bima sharata fihi min al-ayati wa zakkirna bima baqiya fihi min al-ayati كان في تلاوته من شهر أو نشر أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على آخره مع خمسة أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو سيخ بلسان أو وقوف بخير أو إدخال بخير إدخال أو زيادة بخير فارتفع منا على التمام والكمال المهزم من كل الحال وارزقنا فضل من قرهم ودين حقه مع الأعداء والقلب والشعب وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم من العرضة والكسل وأمنا من عصب قد من سؤال منكر ونكير من أكل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسخر ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكرم بخير في أبيان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ودلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في بحثك ومصاحبنا في بحثك ومشباحنا بظلمتك وضليلنا في الحيل ومنقذنا في الأرض في الفتنة وعاصمنا به من الزيخ والهوى وكيل يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بسعادة آجلنا وحق بزيادة آمالنا وقرب بالعافية وقربنا وأسعنا واجعل إلى رحمتك مشيرا وعلنا واصبر سبيل عافية على سبيلنا وهم العينا بشكر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وفيحة بك أزرفنا واعتقادنا وعن الوجوه والخش بلا رب وصائر بلا يوسف اللهم بارك السماوات والأرض وذرياته وصيب أنك على عديد ولأربع أباء وهكذا والشافعين ولأربعين المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الخاتم المسلم وربك الناس amiin amiin ñu yeesalaat sant suñu borom bu baax a baax ci tawfiixam ak ndimbalam yi nga xam ne baaxeeti nañu ko ci jataay bii muy tàmbalik liggéeyub màggal gi ci teewaayub ndawi sëriñ bi cheikh mouhamadul basir euh, teewaaleel sëriñ mouhamadul xabaan mi kilifaam dab léegi ci ab liggéey mu ànd sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma ak sëriñ Cheikh Baara ak bokk yi mu àndal yépp ñëwal Cheikh Mouhamadul Mountakha ci jataay bii di jataay bu am solo ndax ay jataay yu bari jiitu na ko euh, sëriñ bi mbooloo mi nga fi gis dajee na ñeenti alxamis ci gannaaw am na ca alximis yoo xam ne la tari jeg la tari kaamil bi ba wàccee ko jege na téeméeri nit am na ca alximis yoo xam ne la jëmu ji téeméer ak fukk ak juróom-benn ñoo toog ci benn jotaay tari fa kaamil bi ñooñee defe naa buñ dajee ñu ne leen wàcceel leen ñu kaamil ci ñaari minute du jafe ñoo ko nose noonu waaye li fi teew mënoon nañ koo def ay yooni yoon loolu nag day fedd li rek mallakanil qur'aana ya yaduum lu matagul fukki fan waxoon naa ko ci ab jataay boo xam ne ay ndaw a fa dajee xëy fa ak këyit gu weex ak xalimaa ki daa bind fa kaamil jébbali ko sëriñ bi ci guddi gi loolu defe naa matagul fukki fan kero bi ñu koy def nee naa leen lii day nuru na ne beneen dëkk bu dul bii ku ko fa jéemoon mu të te man ñeme naa ñu organiser loo ma ko ci dëkk bi ci ñeenti barab ci benn bis loolu nag kon li muy tegtale rek mooy sëriñ beeg alxuraan kon alhamdulilah mbooloo mi maase nañu ci ndigalal sëriñ bi ku ne xam na ni ca sëriñ ba ba ci ku fi mas a nekk ci ñi ko fi nekkal lépp lu ñuy def alxuraan a ci jiitu waaye ren jii nag mel na ne Cheikh Mouhamadul Muntaqa gën na koo soññeewaat gën koo feddliwaat loolu nag donga yi dégg nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax euh, jànge nañ ko nu nekk ci daara yi ci barab yi waaye mbooloo mi sax ku nekk ku ko mën def nga ko ku ñi ëpp ku ko mënul def lu nga ko kon jataay bu ñu toog di fa tudd ak lim dañuy xam ne mooy lim ba ñu fa fekk waaye matul asaka ci lim yee ñu dajee dajeelut su dee jataay bii 8945 kamil fekk gun na fii ñu toog 8945 xat mu yoo xam ne noppi na fekk gun nañu fii ñu toog waaye mooy li ma wax ne mooy li ñu fi fekk rek waaye li ñu jàng alquran ci dëkk bi jàng ko ci réew mi jàng ko ci barabi Sëriñ Tuubaa yi loolu kenn xamul nu mu toll yàlla na suñ borom nangu lépp euh, dollil ca Sëriñ Tuubaa ak àndandoom yu baax ya ay leer ci fa ñu nekk te yokk ci fanu mu Mouhamadoul Mountakha ak mboolem murit yi koy gunge yépp ak aw fan ak wér bañ gën a mën a liggéeyal sëñ Touba di sant bu baax eh, di ñaan ñu ñaanal donga yi tamit lii di seen njiglaay ndax eh, ren jii xat-xat yi tax ñu yeex a tàmbali tari bi waaye lu ëpp ñeenti téeméeri gone tari dañu ba mokkal téere bi xat-xati màggal gi nag tax na ñi ci seeni sahaada noppeegun nga war leen koo jox ci turu sëriñ bi eh, ñaar 216 la toll waaye li ci des lépp dana àgg ngeen jox leen ko insha allahu taala loolu it ànd ak ay cant yoo xam ne kon gannaaw bu ñu ko jëmalee ci sëriñ daara yi nekk ci daara yi te taxawu donga yi bañ man lool yi ndax buñ delloo ca këyit dañ leen doon dégloo de am na ci gone yoo xam ne minal faatihati ba ca minal jinnati wan naas yi seenu kayit doo ci fekk benn bind ña leen doon déglu dañoo tëye këyit ba mu jeex ñu boole ko xalima ga delloo alxuraan yi wow koŋ yu set wecc ci ay gone yu tuuti kon sëriñ daara ya jonjoo liggéey booba ñu ngi leen cay sant bu baax a baax waaye di ñaanal gone ya nga xam ne it ñoom la ñu def ca ñoom loola ñu am tawféex yi nangu ko di ñaanal seeni way jur di ñaanal it ña leen ca doon gunge liggéey bopp bi mu tàmbalee am nay nit ñu baax ñoo xam ne ba ñu ko déggee rek lépp lu ca war ñoo leen ca taxawu ba luñ aajowoo ñu def ko moo xam muy ca añ ya ca ndékk ya ca lépp lu mën a doon ñi ko doon def si it ci volonté ci biir taw bi bi si alxamis ñu am ca lañ doon xuus di jaar ci biir ndox yi di ñëw waaye ñu xam ne liggéeyal sëriñ bi ci alxuraan moom amutum njëkk lu ca sonn jar na ko kon ñi ngi ñaan mbooleem koo xam ne def na ab jéego ci lool yi ba mu sotti ngeen ñaanal ko mu dajee ceeg tawféexi suñ borom ak ndimbalam ba bu ëllëgee mu yëgu yokkute ci liggéey bii kon ñu ngi gën a sant bu baax a baax a baax a baax di wax rek ne alhamdulilah ni ñu ko daan defee liggéey bii tàmbali na te daa war a dem ba talaata bañ julli suba kon su jataay bii noppee ba kilifa yi dellu ci yeneen yitte yi am na organigramme bu ñu tëral boo xam ne juróom-benni waxtu yu nekk am na ay cellules yoo xam ne ñoom ñoo koy dundal muy continuer defe naa ba muy tàmbali na la ko Cheikh Mamadou Lamine waxe woon te nga wax ma ko mooy xam na ne donga yi seen pas-pas ci jàng alxuraan dinañ ko defee nu ne waaye su màggal gi ñëwee xat-xat yi ci kër yi dana tax nañ ko bëggee duñ ko ma mane kon bu ñu a am barab boo xam ne moom alxuraan ji continué rek te du taxaw lu dul waxtu julli mbaa lu loolu nag kon incha allahu taala day wéy ci barab bii kon ñi ciy gën a soññee bu baax di ci gën a fàttali ñi nga xam ne ñoo yore loolu te war koo taxawu waxtu yu nekk ña ko war a dundal suba ñu barkeeluwaat ci xatmu bi rek te door a mën a yeewikuwaat lu bokkut ak donga yi waaye biir réew mi ci boppam daa mel ne bi ko sëriñ bi waxee ñeen ñu nekk rek fañ ne njabootuk xaadi Amar Fall bu Pire seen juróom-ñaar fukki dëkk ak ñett yooyu yónnee nañ lu ëpp ñaar téeméeri kaamil ndar sëriñ Ousmane Sow ak daara ye yónnee nañ ma 686 kaamil nga xam ne daanaka kon réew mépp rek ñu ngi ci alxuraan ji di ko barkeeloo ci liggéeyub sëriñ bi Euh, daanaka tàntu Hizbut Tarqiyyah bii rek nga xam ne ci première safar ak léegi 2854 kaamil jàng nañ ko fi ci diggante bi kon alxuraan ji moom xanaa foo toll la ca ñëw nga wax ko rek waaye mënee su koo takk. ni ñu ko waxee rek ndigal la loo xam ne sëriñ bee ko joxe mu jëm ci bisam bu tedd bii nga xam ne sëriñ bi moom yitteem jépp moo doon boroomam. alxuraan ak xasiida yi nag doon ay sàllam yoo xam ne nii lu bari ci mbiram ca la ko teg ba léppam sax ni ko suñu xaali waxe alxuraan ji moom kenn mës dégg lu mel nii baa di ko gis mooy ndaw yu tari ab kaamil ci diggante bu gàtt waaye nag loolu du kiimaan ci sëriñ bi ndax sëriñ bi alxuraan yàlla moo ko ci jagleel loo xam ne nii mësula am te it dootul am loolu boo ko waxee ci mbindam laa ko teg xasida yi it mu doon ab liggéeyam boo xam ne nii moo leen sàkk te doxale ko diggamam ak yonente bi sallallahu alayhi wa ak diggamam ak boroomam ba lu bari mu am ko ci kon nag bisoom bu tedd bi buñ fiy taxawal yaar yooyu yi te ñu may saytuloo xasiida yi ci ndigalu Cheikh Modou Bassir nii dama ci sant bu baax di ci am mbégte mu rëy ndax loolu tawfeexi sëriñ bi la di ci sant it ñi ma ko àndal ñëpp ndax ñëpp ko jox yitte ju kawe kawe bisub tey bii ba ñu màggal ba ca suba la ni ko si xaale waxee rek noonu lañ koy taxawoo ci xeeti njàngit yépp moo xam njàngoom durus la wala njàngoom yëkkati ci benn benn wala njàngoom kuréel ginnaaw loolu nag ñi santaat Cheikh Modou Bassir mii rek ci taxawaayam di ko ñaanal ci liggéey bi nga xamee ne da cee am ab cër ndax liggéeyu Sëriñ Tuubaa la te ku ko tudd tudd Cheikh Abdoul Khadir tekki Sëriñ Tuubaa kon nag bu wëlbatikoo di ci taxaw taxawaay yu mel nii alhamdulilah rek eh, lees mën a wax waaye nag du du kiimaan ndax damay junj rek nit moom ci tënk bu gàtt rek Cheikh Amadou Moustapha ba muy wutu sëriñ bi ci njàmbaaram gu réy ga ak taxawaayam ba ñeent fukki at képp la te fii mu toll nag romb na foofu nit nag bu tollee foofu lépp lu ay maamam ak ak i waajuram ci taxawal rek bu dee jàmbaar war na ko mën a taxawal lay kiimaan mooy mu toll fii mu toll te mënta taxawal loola waaye taxawu ko loolu di kiimaan kon dañ koy ñaanal mu yàgg te wér te lépp dëppoog nga ngërëmal sëriñ bi yàlla sàmm salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyu ak kàddu yu siyaare kàddu yu cant ak ngërëm ñu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mu nga xam ne moo fi toogee jataayu Serigne Touba ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak jot di ko jëme ci mbokk yu tedd yi fi teew. di taxawu liggéeyu mag bi muy njàngum alxuraan bi ak njàngum xasida mi te lu ci ne sëriñ bi naka jekk ni ko suñ xaaj waxee ku fi ma sa nekkal suñ Tuubaa ku ne booy woote màggal gi moom nga ci jëkkee waaye ni mu ci soññee ren nag dafa ëppaat ndax dafa wax ne bu weeru duggee rek ne ko ñëpp def yitte njàngum alxuraan bi moo tax nit ñi gën leen cee fa gën cee def yitte loolu nag xam na ko bu baax njàngum xasida it loolu la ci wax ñi man a yëkkati ak ñi mën njàngum durus ndax ñaari sàll yooyu kat mooy sàlli sëriñ bi alxuraan alali sëriñ bi la mooy léppam itam lépp lu mu amee ci la ko am nee na kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa nanju bihi dunyaa wa uxraa min al karbi waxaatit ne rajaw naa minal minal mawlaa bihi xayra matlabin wa fus naa bihi fii kulli daf'in wa fii jalbi isa ma tarawna al aaya fuus naa bi waxtafa ala xayrina min sirrihil jaari bil xubbi loolu doonu sa xaxar naa bi aada kon alxuraan mooy lépp sëriñ bi moom gi moom alxuraan nag jataayu tey ji ndax lii ñu wax fi wax léegi ci kayit boobu ñu bind ci benn bis ci sëñ bi lañ ko jëkk dégge kon nag mam tam likandiɗum jooju day wane ne suñ borom may na ko waaye nungu ko ndax tam likandiɗum ɗo ba faw fawde sax boo xoolee jotaay bii kañ bi wàcc ci ñaari mi teel a ko mos kon fii lu ne danga ko fi dégg xeet xeet lu ne luy wane ne Sëriñ Tuubaa moom lu ne waxtu na nga ci gisaat lu la gën a yëm di ko gëstu lu koy gën a firndeel ñeenti téeméeri gone ci lu matul ñetti semaine hmm. ñu tari alxuraan ci weeru màggal gi nga xam ne boo ko defoon juróom benn yoon kon boo yaxee ay junni dee doon ci dëkk bi kon wane na ne Sëriñ Tuubaa jëkk na ci xol yi ci alxuraan kon Sëriñ Xaadim ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi lay sant yaa ñu ngi ko seqal di tàmbalee cant gi rek ci Serigne Mouhamadou Xabbaan mi nga xam ne mooy seen jëwriñ ci liggéey bi te di ci def taxawaay bu rafet te yàlla def ñoo waroon ànd teew fi waaye kilifaam woo ko mu ne moo fi war mu teew ko benn la ma ko ak njabootam kon suñu xaalis sëriñ bi leen di sant di lay yóbbante cant ak ngërëm nag ci mboolem ñi nga seqal liggéey bi di sëñ daal yi ci kenn lam séentu woon ci yéen ba jox leen digal bi at mu jot positif bi ak yitte ji ak sellal gi di gën a yokk kon mi ngi ñaan ci barke sëriñ bi ci yitte jule ji ngeen koy defal rawatina ngeen du ko def ci bis bi tedd bii yàlla na ne ko suñ Tuubaa nangu tam mboolem lu ngeen ci yéene war aaju ju ngeen ci dàbbal rek yàlla na ko suñ sëriñ Moustapha ci yow lañuy ñuy jeexale yow itam sëriñ baa ngi lay sant bu baax dëgg rek na ma la ko daa waxee at mu jot rek liggéey bi cër biñ ci am su pàggutee fu maam suñu Masamba ndax sëriñ Tuubaa da ko féetalewoon ci xaside yi yàlla def nga gimmi rek jug dëgmal xaside yi nekk ci bëggu ko lool am ci taxawaay kon nag bu demee ba liggéey bi tàbbi ci biir loxo hmm. day gën a dara suñu xel ci ne liggéey bi suñu Tuubaa nangu na ndax bu sëriñ bi masaane génne wala ñu sëlman gee bu génnee ana masamba lay wax inna ñu tàmbul moom la daa def loolu bari ci xasir yi féetali ko ci kon nag boo wëlbati ko te defaat ca taxawaay bii te at mu jot yaa suñu xaar dama leen di yéem bu at bu waxtu jotee ndigal da ngeen digg kenn du leen gisaat sax ba liggéey bi te at mu jot leen ku gën a sellal gën koo taxawu ba mel ni ko sëñ bi kon nag ñu leen di ñaanal ci barke sëñ ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha ngeen yàgg koo taxawee lool te gën ci am dajeeg tawféex gën cee di dajeeg ndimbalu suñu borom waaye gën cee dajeeg ngërëmu sëriñ Touba. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa